ci point de presse boobu ñu waxoon askan wi li nga xam ne mooy suñu plan d'action maamaan maanaam li ñu li ñu mëbët a def tey suba ba ayi bés bi yëpp jeex ci tomb yooyu mu bokkoon ci ñëw fii suñu kër suñu kër fii groupe Walfadjri nemmeeku suñu ay mbokk Walfadjri ci daan yi nga xam ne tegoon nañ leen ko te du dëgg du yoon nekkul woon leneen lu dul jaay doole nekkul woon leneen lu dul tëj gémmiñu Walfadjri ak liñ éditoriale bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko mooy la voix des sans voix ñëw nemmeeku leen ñëw massawu leen ñëw wax leen ne seen naxar ak seen métit mooy suñu métit ak suñu naxar ñun coalition Diomaye président gis ngeen coalition bi jarul may lim ay tur xàmmee ngeen xar kanam yëpp yi fi nekk kon ngeen xam ne lii ñu ñëw def fii tey du lu ndaw du lu tuuti groupe Walfadjri waaye au de la même du groupe Walfadjri la presse sénégalaise ñun coalition Diomaye Président soofa luñ leen nekku leen lu ñàkk fayda ci suñu ay gët dañ leen considérer ngeen am maana ci li nga xam ne mooy suñu programme mooy suñu yéene ci réew mi loolu moo tax ñun ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen ci délégation bi ñu ñëw dajeeg li nga xam ne moom mooy groupe Walfadjri ñu yombal ñu ko loolu ñu dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom euh, waxtaan bu am solo boo xam ne dañ ci génn suñu xel gën a dal suñu xel gën a dal ci ne presse bi en général groupe Walfadjri en particulier fa ñu nekkoon ña nga fa ba léegi suñu xel gën a dal ci ne le groupe Walfadjri comme niñ koy faral di wax vivra et vaincra ñu ñëwoon fi nag pour wax ne delloo si signalu groupe Walfadjri am na solo mais ñu bañ ko dagg ñu bañ ko daggati moo ëpp solo maanaam plus jamais ça plus jamais de coupure du signal du groupe Walfadjri ndax lan ndax li muy wax dëppoowul ak gis-gisu président Macky Sall ndax lan ndax li muy wax dëppoowul ak gis-gisu APR ak Benno Bokk Yaakaar loolu waratul am ci Sénégal ñuy profité waat ci occasion bi massawu toute la presse euh, ci violence yi nga xam ne mu ngi koy dund jamono ji coupure du signal wàcc Walfadjri nekkoon si benn violence faite au journalistes sur le terrain ci seen i liggéey sol sa gilet bu ñu bind presse ñu dóor la ñu jàpp la ak ñoom seen seetuñu si góor seetuñu si jigéen seetuñu si mag seetuñu ci ndaw nous condamnons donc fermement li nga xam ne mooy dal fu mu nekk nii euh, la presse en général ak groupe Walfadjri en particulier lii am nag te dal presse bi ñun coalition Diomaye Président bettuñu ndaxte Sénégal mënul tumranke dix-huit millions de citoyens sénégalais ñu leen di noot presse bi nekk un îlot de stabilité presse bi nekk un îlot de paix loolu lu muy wane mooy bu ñu gaawul indiwaat jàmm ci réew mi bu ñu gaawul rétablir l'ordre constitutionnel ci réew mi ku ci nekk ci ñun dina jot wàllam tey Walfadjri la tey presse bi la waaye suba ñeneen la donc jàmm ci la lépp xaj te ci loolu la ñuy dox ordre constitutionnel respecter constitution ci la jàmm Sénégal yëpp xaj moo tax xeex bi foog ñu continuer ko damay daaneel di wax ne waxtaan nañu ak waa Walfadjri yëpp ñu xamal ñu ne signal Walfadjri ñëwaat na waaye foog ñu comprendre ne Walfadjri benn rek ci làmp yi nga xam ne moo am ci Sénégal moo ñëwaat waaye yeneen làmp yëpp dafa war a takkaat te ci làmp yooyu làmp constitution bi foog mu ñëwaat et que sax coupure signal Walfadjri xëy na sax tentative de diversion la woon pour askanu Sénégal bàyyi xeex bi nga xam ne ci la nekk pour des élections à date échue pour élection présidentielle 25 février 2024 pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel moo tax mbokk yi na ñëpp dem jëli seen carte électeur ndaxte élection day am na ñëpp continuer campagne bi électorale bi ndaxte élection day am na ñëpp bañ lank ba tëdd ci suuf wëyal désobéissance civile bi ndaxte élection day am du ñu nangu deux mille vingt quatre ñun ñii sénégalais yi fi nekk ñu naan ci ñun la Sénégal dàqee élection présidentielle ci ñun la Sénégal amee président à vie ci ñun le Sénégal amee troisième mandat illégal et illégitime ku nekk nag na def lu ko war nañ dem jëli suñu carte électeur allons retirer nos cartes électeurs nos cartes d'électeurs nañu waajal élection bi nañu gën a defaraat gën a dëgëral taxawaay bi waajal élection février vingt cinq février deux mille vingt quatre jërë ngeen jëf はいloolu képp ko foofu merci merci la presse euh, ñu ngi leen di remercier ci seen euh, présence alors euh, la coalition Diomaye Président dans son plan d'action était venue aujourd'hui euh, visiter le groupe Walfadjri le témoigner euh, tout son soutien Euh, représenté par euh, Madame la Première ministre, le Premier euh, Guirassi, l'honorable député Guy Sagna, le président Aboubsi et toute la délégation. Nous sommes venus témoigner à l'équipe de Walfadri que nous sommes touchés par ce qu'ils viennent de vivre. Et nous pensons que dans un pays normal, une décision aussi extrême ne devait pas être prise. Et nous appelons les autorités de ce pays à reprendre conscience et comprendre que un pouvoir est toujours éphémère et un pouvoir doit être euh, vraiment euh, dédié au peuple et non utilisé pour brimer le peuple. Et je pense que l'information, le droit à l'information, tel que Walfadjiri le fait, tel que d'autres le font, sont aussi importants pour ce, ce Sénégal-là, pour cette démocratie-là que nous aimons temps Je pense que euh, nous, avec les décisions que Macky Sall euh, vient de prendre, nous venons de perdre une place très importante dans le concert des nations. L'image du Sénégal a été écornée par ce, ce président-là qui s'agrippe au pouvoir encore une fois de plus, qui brime les libertés et qui s'attache, qui, qui, qui s'attaque à tout ceux-là qui défendent leur liberté publique. Vraiment, on était venu pour ça. Lolo le témoigner suñu suñu attachement à ce à ce joyau là que ñun ñëpp ñu bokk ci bokk ci xeexu Walfadjri bi et ñu rassuré wu bi ñu président waxee ne ñoom suñ seen ligne du changé et dañuy continuer seen combat ñu suñu xel dal bu baax a baax en tout cas loolu la ñu ñëwoon la coalition Diomaye président ñëw encore une fois de plus pour montrer suñu détermination aux côtés de Walfadjri pour montrer suñu détermination aux côtés du peuple et à tous les organes de presse qui vont vivre une situation pareille merci beaucoup. mu ngi noonu mbokk internet comme ni ngeen ko gisee waa coalition Diomaye président ñoom ñoo doon amal benn point de presse bu ndaw ginnaaw bu ñëwee fii ci locaux yu Walfadjri comme rek ni ngeen ko gisee en image noonu kàddu yi nga xamante ni jot nañ ko fee